ñuy jëm ci wàllu fajum traditionnel ak lu aju ci wàllu asraar ci mbirum alquran ak lépp loo xam ne nit ki mën na koo jariñoo jam jaare ko ci alquran ah, bu ko defee kon ñi nga xamante ne nii bëgg nañ cee participer mën nañ koo bàyyi xel émission bi ubbil na buntam ñëpp tey nag ñu dalal ah, kenn ci nitu daara yi kenn ci borom xam-xam yi tudd Serigne xaadim Seye borom rahma Serigne Khadim ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu allahuma salli ala seydina muhammadin wa xadimihi wal ali wa sahbihi wa sallim fayallahu ñu ngi nuyu ñuy seetaan ñëpp à travers Dakar di nuyu Seydina Muhin di nuyu bu baax a baax ñi ñuy seetaan ñëpp mm-hmm. asalaamaaleykum wa kon sëñ Xaadim xam naa dañuy ñëw jubloog yow ci li nga xamante ne moo ñu tax a jóg waaye xam naa balaa nga waxtaan ak nit bëggoon nañoo xam fan nga fan nga jànge mhm. ak fan mooy sa delluwaay ci dëkkuwaay waa kay Seydina Mohin euh, di ndongalu xeebu luñ naan xaadim ñu mhm. gën koo xamee ci suñu xaadim borom raxmatan maa mhm. ngi dëkk Touba. cosaanoo ci diggante ndam ak sëy ndaam ak sëy jaar nañ nag ci daara yu bare bari jàng nañ alxuraan ba wattu ko ba sunu borom suturaal nañu ci it ba amul ci leen loo xam nit mën nag cee wax te maîtriser wuñ ko pare nag jàng téere xam-xam lu mel ni fiq tawhid ak tasawuf macha allah buñ noppee ci loolu nag ñu door nag gëstu nag dem jàng xam-xamu asraar mm. dem nañ ci ci ay dëkk yi fasantiku ko mm-hmm. daje tamit façon ak kilifa gu nekk it mm-hmm. ñuy ñuy ñuy santaat borom bi bu baax a baax ba lépp loo xam ne dafa aju ci xam-xamu asraar rek mm-hmm. lu koy lu loo koy lu koy jëmale kanam rek ak loo koy développé rek. Mm-hmm. sunu borom def na ñu ngi ci biir te ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Xaadim loolu yaakaar naa leer na kon jot ngaa jaar ci daara mm-hmm. li ma li ma dégg ci sa waxtam mooy kon. yow yemoo ci asaraar rek daa mel ne njàngum diine kon géeju nga ci toon ndax bunt yi nga wax noonu ku ko jàng ci euh, dëkk bi rek dinañ tuddee borom xam-xam loolu xam naa danañ jëm ba ci biir peut-être dina ko laaj euh, tur wi nag xam naa ne moom rëy na loolu borom rahmatan rahmatan ji moom xaw ma rahmatan ji moom lan la <laughs> jàppale ci jaamu yàlla rahmatan borom rahmatan rahmatan de xanaa mooy yërmande borom rahmatan mi ngi signifié yërmande ndax wa maa ah. arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin ah yow da nga am yërmande ci jaam ñi daal waaw ah waaw yërmande am na solo yër su yonent bi ne ne arrahimuna yarhamuhum rahman mhm. ñi yërëme yàlla moo leen yërëm yarhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama suñ xaadim dañ ci xam naa comme mhm. temps amul dañuy mhm. ñëw euh, tàmbale yow suñ xaadim lan mooy asrar man yéen sëriñ si damay dégg ngeen asrar asrar asrar asrar lan mooy asrar buñ nee asrar mi ngi jógee ci baat bi ñu naan sirru. sirru ah. boo déggee sirru mooy un secret. un secret kon buñ la buñ la waxee ne la al asrar kon jamu la. kon ah, am na jamu mooy pluriel. ok ah, mooy pluriel am na secret yu bari yu nekk ci biir. macha allah léegi nag asrar ci boppam. Mhm. benn xam-xam la boo xam ni. Mhm. day mel ni doomu aadama bi rek nit ki. Mhm. buñ ne kii wala insaan nit la. Mm. am na loo xam ni mënut a manqué ci moom. muy bët ak nopp ak ay loxo. ak bakkan ak ya ci aju mm-hmm. kon xam-xam asraar benn mbir la moo xam ni benn jëmmul juy taxaw waaye la mm-hmm. nekk ci biir dafa bari ah, dafa am ay branche daal dafa am ay branche ci biir léegi nag mm-hmm. li nga xamante ni faw mu dajee ci ci ki nga xamante ni mooy woote woon ni man maay sëriñu asraar ndax sëriñ dafa dafa bari ay façon am na ku ñu naan seexu taalim sayxu taalim am na ko mooy lan sayxu taalim sa Sénégal ñu ba déglu arab taalim mooy ki nga xamante ni moom lañ tuddee un maître coranique un maître coranique waaw léegi hmm. kooku moom day jàngale rek kooku mooy sayxu taalim waaw hmm. am na ku ñu tuddee sayxul murabbi sayxul murabbi moom lañ tuddee un guide spirituel un guide spirituel waaw kooku hmm. loolu mooy ci loolu lay dox am keneen koo xam ne sayxu tarxiya la wa tarbiya sayxu tarxiya ak tarbiya. waaw ah, kooku ñaar moom ñaar yooyu lay boole. Mm. am na koo xamante ni degré. boobu mooy ban tarxiya ak tarbiya mooy lan. mooy ki nga xamante ni day nàmpatal doomu aadama yi jëmale leen seen digg seen borom lépp loo xam ni bon boni àdduna la mu sore leen ak loolu di leen wan ni benn semi rek moo am benn yoon rek mooy am. mooy yoon wi ngay mm, jaar. mooy ak taxali ak taxali. waaw yoon wi ngay mm. jaar nga jublu sa borom. jërëjëf kooku loolu rek mooy kii am. am na kooku ruux moo ko intéressé daal mu déggee sa wax. waaw kooku. ruux rek moo ko intéressé ci nit ki. Mm. kon sa ruux lay jël tàgg tàggat ko. Mm-hmm. ba sa da ngay dem ba sa ba nit ki. Mm-hmm. degré ruuxam day ëpp doole yaramam. Mm. parce que nit ki bu fekkee day jaamu yàlla li ñu tuddee jism ya mooy nit ki li tax mu yëg mettit li tax mu yëg bànneex. Mm-hmm. li tax muy am li ñu tuddee ay désir ay xiif. ay yeneen ak yeneen loolu day dem ba day wàññeeku ci nit ki. kooku foo ko fekk lenn rek lay xentu muy boroomam. boroom kooku nag seexu tarxee bi. moom day boole tarxiya ak tarbiya hmm. kooku moom ci moom la yar di la yéegal waaw kooku loolu rek moo ko intéressé macha allah am na keneen koo xam ne nag kuñ naan am na kuñ naan xutbul zaman xutbu zaman waaw xutbu zaman de dama koy dégg moom mooy lan moom xutbu zaman mooy ki nga xamante ni yàlla dafa yabal ci àdduna ay kilifa yu bari hmm. am ci ay wàlliyu hmm. am ci ñoo xamante ni ay sayxu saalix la ñuy doon dañuy doon hmm. sëriñ bu sell buy sellal buy setal rek léegi nag ba tey kenn ku ci nekk am na da am sa mission ndax buñ fàtte ne yonent yi dafa am ñu ñu tuddee woon al mursal ak annabiyu am na koo xam ne day mission am da koy nëbb hmm. luñ ko mën a révéler digganteem ak boromam amul dara wax ko kenn hmm. am na nag koo xam ne luñ koo xamal digganteem ak boromam amul droit téyeekul tolloog 30 minutes loolu dafa gis nit te wax ko ko. te jàllale wu ko waaw da ko war a wax. kon daal missionnaire la daal. waaw mm-hmm. léegi xutbu zaman nag ci ñooñ ñoon nga xam ne suñu borom moo leen fa wàccee. Mm-hmm. dañuy bari lool doon mm-hmm. ay wàll yu doon ay muxarabun léegi nag moom bu ñëwee day doon ki nga xam ne mooy jilif jamono ji. nga xam ne foo wàll yu mën a ne ci àdduna. sa ñoo yëkkati sa kurus waddal benn per te moom fa toog yëggu ko nga xam ne li suñu tubaab da wax rafaxatu iqdaami xayra rasuli rafaxan bii wa fattu kulal mursal day dem ba hmm. kooku taxawaay boobu lay taxawee loolu mooy lan suñu tubaab lu mu wax foofu moom mu ne suñu borom yéegal na ma yéegal bu kawee boo xamante ni hmm. dem naa ba àgg ci fam ma teg foo xamante ni nabiyul mursal yi hmm. kenn ku ci nekk lépp loo def rek ci lu baax day mel ni professeur bi rek élèves yi bu ñu defee seen i euh, épreuve ba pare moom moo koy moom moo koy vérifier corriger ko loolu ci baax mu jàll mu door kii suñu tubaab boobu la wax macha allah nag seexul tey nag yooyu yëpp ay xeetu sëriñ la ba tey bokkuñu. Mhm. bi ñu tax a jug nag mooy seexul asraar. waaw ah, boobu nag bëri na de. gaa ah. yéen lay gaa yi ku jóg na sëriñ asraar la. léegi nag mhm. sëriñu asraar. Mhm. kooku comme li ma la wax sànq asraar day doon benn mbir moo xamante ni luy taxaw lay doon. jëmm la waaw comme son comme caméra bii rek am ay faculté ci comme caméra bii rek. am na bouton boo xam ne mooy taal. am na bouton buy zoom. am na bouton boo xam ne leneen bu ci nekk ak li la war a li la tax a jóg mm-hmm. lépp nag mënta ma mënta manqué ci ci caméra bi mm-hmm. léegi nag ci biir mm-hmm. dafa am loo xamante ni fa la fa mooy liñ tuddee xilmul euh, xuruf ilmul xuruf mooy moom mooy lettre yi mooy xam-xamu araf araf ndax alphabet arab moom lu muy jariñ la moom lu muy jariñ dinaa dinaa dinaa ci ñëw léegi li ëmb asraar laa lay wax rek waaw bismillah ndax moom lañ naan xilmul xuruf xilmul xuruf loo xamante ni loolu lañ tuddee mooy chiffre te tubaab naan ko le poids mystiques les poids mystiques mooy xilmul adat mhm. mooy lan moom xilmul xuruf mooy lettre mooy lettre waaw ah, ilmul adat mooy ah, a calculer turu nit ki xam lii la léegi nag comme exemple xuruf yi bu fekkente ni vingt six xuruf moo am mhm. vingt six xuruf yooyu noonu mhm. li ko dalee A ba ja ba ci chaga ba nga mhm. xam ne mooy mooy moo mujj mhm. bu ci nekk am na lu muy taxawee benn benn chiffre bu muy ah, taxawee dafa am lu muy compter daal waaw léegi compter boobu nag lañ tuddee poids mystique oh. loolu lañ naan xadat mooy poids mystique waaw léegi xilmul xadat mhm. loolu mun mënta ñàkk bu pare nga amaat leneen loo xam loo xamante ni moo tudd xilmul nujum ilmu nujum ilmu nujum mooy lan xam-xam la boo xamante ni parce que damay bëgg moo yi boo ko waxee nga mhm. préciser ci baatu olof bi mm, ci baatu olof yu bëree bëri mhm. dégguñu arab waaw <laughs> xam nga wolof moom bala arab balaa jëriñu ay wolof ñu firi ko mm, waaw <laughs> léegi ilmu nujum mm. mooy xam-xam bi nga xam ni moo dox ci biddiw yi ndax biddiw yi fukki biddiw la ak ñaar yoo xam ne ñooy dox ci suba si fukki biddiw ak ñaar mooy douze ñooy dox ci suba si waaw am yeneen douze yoo xam ne ñooy doxaat ci ngoon gi. daa mel ne jàng wàllu géographie la léegi nag loolu moo tax hmm. boo nee douze fois deux da la lay jox vingt quatre. vingt quatre léegi nag loolu moo tax ñaan vingt quatre heures. vingt quatre heures waaw biddiw hmm. yi mooy fukk lañ ak benn. ak hmm. astafurlah ak ñaar. ak ñaar waaw léegi nit ki bu fekkee dafa juddu ci jour bi mu judd. jour bi mu juddu moom nit doomu aadama bi. am na forcément biddiw bu doon dox ci moment boobu di circuler day tombanteeg heure boobu na noonu biddiw boobu di dox. kon nit ki biddiwam nangam la. nga xam ni ci man a xamee boo dajee biddiw maanaam loolu luñ ci mën a xamee. nga xam ni léegi lu ah? luñ ci mën a xamee comme boo juddoo bi sàngam. waaw heure sàngam. waaw biddiw sàngam mooy dox. waaw loolu luñ ci mën a xamee daal luñ ci mën a jariñoo daal ci biddiw boobu. liñ ci mën a jariñoo. Mhm. mooy bu fekkee da ngay ñaanal doomu aadama bi. Mhm. léegi nit ki bu fekkee da nga koy ñaanal. Mhm. Euh, faaw boo xamee turam. léegi booy jël turam nga xadat ko doo ko jël exemple ki tudd Faatu. kooku booy jël turam da ngay jël asliya ba cosaan la. Fatima Fatimatu lay doon booba. Mm-hmm. nga calculer ko. xadat ba mu lay jox loolu poids mystique boobu noonu. léegi loolu xam nga kon xilmul xuruf dugg na. xilmul adat dugg na xilmul adat dugg na. waaw léegi am na laaj ma a laaj foofu chiffre na. am laaj ma bëgg xam nga ñoom ñaar ñëpp mënuñoo foofu. waaw am na laaj a laaj foofu. Oh, waaw bisimilah. ki tudd Fatima. Mm-hmm. bu koy woowee. yéen ban ak lu ci mën a xew rek asliya ba ngay jël turu cosaan la ah mais sëñ bi ñu tudd fa xam nga képp koo gis ñaan ko faatu rek. ci mhm. Fatimatu bintu Rasul la bawoo. Mm. képp képp koo gis yi matul Roqeya tur la tudd. Roqeya kon day soxla nga soxla santam daal. day soxla déedéet maanaam tur bi asliya bi. xam nga tour dafa li bari na tur yoo xamante ni dafa am signification. Mm. nga xam ni baatu arab la. la léegi nag comme ki ñëw tudd faatu. Mhm. te faata ba tey mhm. mën naa. firi dëddu na. Mhm. firi faatu na tànk lañ koy bindee. non non dama ni. Mhm. ki tudd faatu. Mhm. xam nga boobaa faa ngeen. sa turu waajur bu jigéen lañuy jël. léegi nag loolu boo ko ndax bu fekkente ni yàlla dafa def semaine bi nekk sept jours ndax du lundi au dimanche sept la. kon ci chaque jour rek am na rawxaan buy dox. lu mel ni jabra yaa ilu rawxa yaa ilu samsa yaa dat dat ma yaa ilu samsa yooyu ak Mikaayilu ay rawxaan lañu xam malaaka la wala. léegi xaaral ma pare leeral la. Mhm. léegi rawxaan boobu di dox. Mhm. amaat na tamit leneen loo xam ne lay dox ci jour boobu muy jinne jinne waaw parce que set sa sapin jinne yi nga xam ne ñooy dox ci usbuux yi mooy ci semaine yi. juróom-ñaari jinne lañ yoo xamante ni mi mooy marata abiyat ahmar burxaan maymuna samharus ñoom dañuy dox léegi nag nit ki da ngay xam bu fekkee yaa ngi calculer loolu. Mm-hmm. nga xam nit ki euh, jour boobu ban ban ban ban rawaxaan la àndaloon. Mm-hmm. ban jinne la àndaloon correspondre. Mm-hmm. forcément biddiw bi day génn. léegi après jinne ji boo ko xamee jinne ji ban sens lay am ci parce que ji boo ko xamee. loolu it beneen la. ndax bu fekkee xam nga nit ki. bis bi nga xamante ni ci la. ci la ci la ganee àdduna mm-hmm. exemple bu judd woon dimanche mm-hmm. jour yëpp bu ci nekk mm-hmm. am na yére boo xamante ni wala couleur boo xamante ni dafa baax loolu kooku di ko sol ci jour boobu am na cuuraay boo xamante ni dañ ko war a taal ci maanaam chaque jour ak cuuraayam wala chaque jour ak couleur yére bi nit ki war a sol chaque jour rek ak sarax bi nga xamante ni saraxu bis bi la hmm? loolu bokkul ak sarax bi nga xamante ni saraxu biddiw la wala saraxu tabixa la léegi nit ki bu fekkente ni. Mm-hmm. loolu mi xam na ko. Mm-hmm. nga génnee biddiom ba teg. Mm-hmm. kon jin jinne yi nga xam ne moo koy moo koy toppatoo. di nekk ci ay mbiram di ko protéger loolu teew na. bu ah, ko ok ah, teewee. Ah, euh, sëñ bi am naa foofu ab laaj. daa dama dégg ngeen ne jinne ji moo koy protéger. waaw kon léegi yàlla dafa dagal si responsabilité foofu wala. déedéet sunu borom. dañuy wax ni bu fekkee dafa bind doomu adama bi. bu nee xalaq insa min nutfatin amsaarin nit ki bu nee ba tudd Mm-hmm. mooy fœtus mm-hmm. ci moment boobu suñu borom da koy yebal lu koy protéger loolu moom lañ naan rawxaan loolu rawxaan xarin la tudd mooy lii ànd ak nit ki nga xam ni boo toogee waxu kenn néew fii ngay wax mm-hmm. foog ngay waxal loolu te gisoo ko loolu noonu léegi nag xeet yu sarax yooyu ngay nga xam ne moom ngay def exemple ki juddu dimanche ñu ne ko yow day rouge baax na loolu nga koy sol dimanche rouge cuuraay ahmar wala cuuraay sandal walla jaw yi baax na lool nga koy taal sag dimanche del saraxe sag dimanche mburu wala del saraxe sag dimanche beñe wala deel saraxe chaque dimanche tàndarma kooku day doxal ay mbiram léegi nag kooku day dem ba xarin boobu ma lay wax muy muy nelaw ci moom mm-hmm. loolu tubaab tuddee ange gardien mm-hmm. ange gardien boobu mm-hmm. day dem ba ba day mujjee dëkk ak moom bu dëkkee ak nag yow mhm. dootoo yëg lu baree bari ci àdduna mhm. sa borom rek ngay jublu. kon xarit malaaka la daal ma déggee parce que baatu ange nga kii. non non Asgard tur la. Mhm. maanaam tur la rek. Ah, mooy li lay li lay topp loo leen tuddee ma loolu loo leen tuddee Asgard yi. Ah, waaw kay sëñ Xaadim jërëjëf ci ah, tont yooyu leer na. sëñ Xaadim. bëggoon nañ la laaj ku wax mbir dina wax sart yee ca war a dajee. julli dafa am ay sart njàpp am ay sart ak yeneen ak yeneen. Euh, sëriñu asaraar yan sarta war dajee ci moom waaw Cheikh Mouhidine buñ nee sëriñu asaraar dafa am ay sart yoo xamante ni faaw mu dajee ci moom mhm. ñu door a wax ni kii sëriñu asaraar la parce que comme li ma la wax sànq façon sëriñ yi am bari na mhm. kii mën naa doon sëriñ bi kii doon sëriñ bee am na sax koo xamante ni sëriñ buy ñaan la nga xam ne ñaan moo ko tax a jóg comme ñaan ni mu amee ay façon mm. nga xam ni am na koo xam ne ay fétiche la yor kee yor magie kee yor vaudou kee yor sihru mooy xam-xam bu ñuul ñu naan ko euh, zulmaniya waaw zulmaniya wala nuraaniya li hmm. mu amee am na koo xam ne sëriñ la nag buy ñaan mais du sëriñu asraar parce que li tax mu war a doon sëriñu asraar mooy <laughs> lii sart yi war a dajee ci sëriñu asraar faaw dafa war a dajee ci moom mooy comme li ma la wax sànq hmm. day xam xilmul xuruf hmm. xam xilmul adat xam xilmul nujum lu jëm ci wàllum rawxaan ak xuddaam. lan mooy yan mooy loolu ilmu adat ilmul xuruf kon baatu arab yi boo ko mën a leer nga développé ñu ci bunt boobu. waaw léegi ilmul ilmul xuruf mooy xam-xam bi aju ci lettre. Mhm. lettre comme alphabet bi. Mhm. nga xam ni boo nee boo nee a ba ja ba ci chacha gi gu ma gu mujj gi. Mhm. nga xam ni loolu lettre la yoo xamante ni mooy vingt six lettres yoo xam ne moo composé alphabet arabe. loolu mooy tudd xuruf. léegi nag benn bi rek loolu lañ naan xaraf. jamxu bi moom lañ naan xuruuf mhm. léegi nag buñ nee xilmul xadat mhm. mooy calcul wala chiffre mhm. ndaxte ci lettre yooyu noonu bu ci nekk rek am na chiffre bu muy taxawee chiffre boobu muy taxawee loolu lañ tuddee xadat bi wala loolu lañ loolu tubaab naan le poids mystique loolu mooy li nga xamante ni dafa war a daje ba sëriñ bi xam ko ba pare xel mu nujumit mu mu ko ndax nit ki boo koy ñaanal pour ñaan gi dal ndax dafa am ñaari façon sëriñ yu am am na sëriñ boo xamante ni ndax xam-xam da koy jàng ba pare door koo gëstu mais bu fekkee da ngaa ñëw jiital gëstu kon doo doo am taawu jàng te sëriñ bii gësu exemple ma ñëw ne la man de Cheikh Mouhamed damaa bëggoon nga jox ma secret boo xam ne daal day maye xaalis wala secret boo xam ne daal day ma je marque la comme joueur boo xamante ni dafa bëgg dugal ay bal mm-hmm. nga jox ma benn secret bu nit ñëwee am ci man aajo. tànk que yëruma kayit gan ma joxoon. duma mën a fat aajo af du ko mën a faj. waaw loolu ñu tuddee kamatara. léegi nag ñiy wax ni ñaari sëriñ yooyu day mel ni nga dajal leen ci benn àll. ku ci nekk nga jox ko benn feles. ak benn gaynde. sëriñ bi nga xam ne kamatara lay jëfandikoo day ñëw rek laajte nga jox ko. kooku nee na mook feles bi nee na bu jaa bu bu jamee yàlla mën naa def mu mu mu dal gaynde gi mën na ko bañ a dal. mais ki nga xam ne dafa dafa dafa dafa jàng asraar xam ko bu baax a baax. kooku heure bu jamee benn jam rek lay jëm forcément bu visé rek bu bàyyi day dal gaa yi dégg ndax xam dafa xam fi mu war a dal. kon mooy li ma sànq asraar ay ponk ak pàcc yoo xamante ni ñoo ko séq te benn mun cee dem bàyyi moroom ji. nag nit ki bu fekkente ni xam nga xam nga turam dëgg. xam xadat bi. nga xam ci ban biddiw la bokk. ci samsu xamar mariix mustari xataaratu zahratu boo xamee yooyu nga xam tamit nit ki tabi xam lan la mm-hmm. parce que dafa am lu ñu tuddee la nature de la personne mm-hmm. mooy quatre éléments yi tura naar yi tura bi xawaa iyu maa yu ñeent lay maanaam dafa am lu tuddee safara mm-hmm. am lu ñu tuddee suuf am lu ñu tuddee ngelaw am lu ñu tuddee ndox mooy quatre éléments yi nga xamante ni mook tuuru nit ki ñooy ñooy dëppoo maanaam nit ku ne rek am na boo ci tollool am na boo ci tollool waa kay mm-hmm. léegi nag kooku nag am na sarax boo xam ni moom moom moo baax pour nga koy def mm-hmm. parce que exemple ki nga xamante ni dafa tudd exemple ki nga xamante ni ay mbiram suuf la mm-hmm. suuf kooku saraxam li ci ëpp nay saraxe loo xamante ni luy sax la daal ay fiir wi wala xeet yooyu noonu ki nga xamante ni ay mbiram ngelaw la kooku li ci ëpp moom it day sara day li ci ëpp rek ay ndox ay boisson yooyu lay faral di saraxe waaw ki nga xamante ni mm-hmm. euh, bosom euh, safara la mm-hmm. ko kooku naar yi la kooku lu ñuy togg mu ëpp mooy mooy moom moom lay bëgg di saraxe moom lay war di mm-hmm. saraxe ngir loolu mooy jàppandal ay mbiram ndax jàppandal googu muy jàppandal say mbir dangay dem ba loolu day dëppook sarawxaan léegi nag sarawxaan da lay déggal ci ngay dem ba nit ki xam nga doomu aadama bu tëddee fi mu ne nii boo gëmentoo rek ñëw tëdd nii bal ngaa nelaw bala ngaa nelaw di nga sa xel dina dem ci li nga yendoo def ci journée bi wala li la ci gën a marqué mooy njëkk a ñëw bala ngaa nelaw boo nelawee nag am na luy looy gént boo géntee dañuy wax ni gént gi nit ki di gént day bari mais gént bi nga xam ni moo def sa bopp te nga fàttaliku loolu mooy message bi la suñu borom bëgg a jox nga xam ne am na ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc ci firi gént léegi kon firi gént ñaar ñoo koy def ki nga xam ne dafa am xam bi ak nga xamante ni xel mu rafet doxee rek mhm. nag sa rawxaan bi dëppoo gi muy dëppoo ak yow da ngay dem ba yow boo tëddee da lay gént loolu yi xew ci àdduna bi mm. da ngay dem ba yow sa gént heure boo ko jëlee nga interprété ko rek boo xaaree quelque temps di ko gis mm-hmm. da ngay dem nag ba da ngay dem ba suñu borom da lay defal tamit loo xamante ni day mujjee nekk ci yaw mm-hmm. léegi da ngay dem ba dangay mujj fonk fonk fonk jaamu yàlla rek ngay bëgg mm-hmm. parce que dem na ba toll foo xamante ni sa ruu ëpp na doole sa yaram sàkku yàlla rek ngay bëgg ak di di wéet da ngay bëgg ba da ngay dem ba tool foo xamante ni dootoo sax bëgg di jege doomu aadama yi mm-hmm. kon sàkku sàkku yàlla rek ak di ko xentu ci ngay nekk léegi nag loolu mooy ànd ak sa sa sa sa sa sa rawxaan ngeen nekk ci loolu nekk ci loolu ba xëy nga yor luñ tuddee tur tur yàlla mm-hmm. parce que sëriñ bi ba tey ci sarti sëriñ bi mooy sëriñ bi mm-hmm. dafa war a yor tur yàlla bu wér kéng di ko doxal tur waaw ndax tur tur bi ngay doxal ndax loolu moom lañ tuddee ismullahi azam tur yàlla bi. Mm-hmm. noo ko yaa ko jox sa bopp wala say gëstu ngay def wala. non xam nga xam nga tur yàlla yi quatre-vingt-dix-neuf lañ. Mm. bu fekk ndax bu ci nekk rek dafa am secret bu nekkaat ci biir. boo xam ne dañ ko nëbb daal. waaw bu nekk comme liñ mel ni euh, yaa latif xam nga xadat bi lim bi mi ngi lay jox cent vingt neuf am na ñu koy liggéey latif seize mille six cent quarante huit ci diirub ñetti fan wala sept jours. am na lu luñ génnee ci biir lu ñu tuddee talsam nga xam ni am raxasu saxasasu saxasasu googu nga xam ne boo ko jàngee benn yoon rek mel nga ni ko jàng nangami latif. la ma dégg nga ko est-ce que turu jinne yooyu du turu jinne léegi waaw léegi loolu lañ tuddee talsam. talsam talsam rawaxaan la exemple man suñu xaarim laa tudd mm-hmm. yow nga tudd Cheikh Mouhidine. Mm-hmm. léegi dañoo bëgg am xaalis xaalis ñu ngi koy waxee fidda mm-hmm. léegi man suñu xaarim ak Cheikh Mouhidine maa ngi ñaan ci barkeb yàlla dañoo bëgg xaalis xam nga loolu dafa xaw gudd. Mhm. danga koy da koy tënk. Mhm. sëñ Xaadim sama siin goog ngay jël boole ko mu euh, mu xëydu mu xëyminu mhm. sa miim googu noonu fidda nga jël nga jël daagi wala faagi nga xool beneen tur yàlla boo teg loolu lañ tuddee talzam. boo di xaalis mu ñëw waaw xam ne exemple laa la jox rek. Ah. waaw léegi loolu lañ tuddee talzam léegi nag bari na sëriñ soo xam ne wala. ñi ngi dofloo nit ñoo xam ne ndax léeg-léeg da ngay jël da benn sëriñ day dem ci benn dëkk gëstu xam-xam ñu jox ko benn tur yàlla mais moom ñemewu koo wérdu ndax wóorul raga wóoluwul rawxaan ba te nekk ndax talzam dafa am rawxaan bu cee nëbbatu mm-hmm. léegi nag yow mii fi mu ne su ma ñëwoon ne la sëñ Mouhidine man daal damaa bëggoon nga jox ma secret boo xam ne daal su ma ko liggéey lii ak lii mm-hmm. nga ne ma man de bi ma mujjee dem Cameroun gëstu naa fa secret boo xam ne xaaral ma jox la ko mm-hmm. dégg ma koy jox soo ma ko joxee samay mbir baax suba nga jël ko ba ma ko joxee nag ma dof wala ma dee fi <laughs> yow moom da nga dootoo ko laal. léegi sëriñ bi buñ ko joxee tur mënu koo xool. Mhm. def istixraaj ba xam. léegi nag loolu sëriñ boo gis mu koy def nag mooy koo xam ne xam-xamam ci asaraar des na kon moom li li ma la sànq mën ngaa doon sëriñ buy ñaan mais doo doon sëriñu asaraar mhm. ndax sëriñu asaraar da ngay peek asaraar kon kooku xam bi aaju ci huruf ak hadat comme li ma la doon wax sànq. Mhm. kooku da koy mën. léegi istixraaj boobu noonu ci ngay génnee ba xam tur wi fan la cosaanoo ak lan moo ko tax a jóg boo xamee loolu nag di nga xam ndax liñ la jox baax na am déet bariwaan ne tur wooy wérd exemple ñu ne la boo koy dee de lii tur wii de euh, ay turu yàllaa ko composé mhm. mais boo xoolee ba ci biir la ko composé du ay turu yàlla comme exemple ñu jox la das machine tas masun das machine la fekk ngay wax yow ngay fen wala ngay déglu détail boo xam ne lañ fi wax baaxul wala ngay ngay nga yow nga ngay lekk riba mhm. Ah, mais loolu moom avant tout moom loolu sare dala ko tere waaw lekk baax léegi nag kon moo tax ma ne la kon ki nga xam ne daf na woote ne man sëriñu asaraar laa mhm. lii mënul ñàkk ci moom ndax turi yàlla ba muy yor di ko doxal moo tax ci tënk daal mooy day sàmm day sàmm di sellal di jubal mhm. lépp loo xam ne soo yoon ci doo ci boole sa bopp ba noppi nga nangoo sonn lool ci ci ci ci jàng alxuraan ak tamit ci ci ci kurus xam nga lu tax jàng alxuraan googu day raxas sa xol te nit ki bu xoolam seet seetul dana jafe loolu mu ñaan dara suñu borom may ko ko surtout koo xam ne ñu bari dañuy dañuy yaakaar ci yow di ñëw ci yow. kon xol bu set. waaw kon faaw yow mi nga xam ne dañuy yaakaar ci yow di ñëw ci yow faaw nga am loo xam ne danga koy wattu di ko moytandiku am loo xam ne day nekk sa dund. Hmm. nga di muy loo xam ne ay lawraat lay doon looy jaamoo hmm. yàlla. Hmm. loolu mooy dem ba di la gunge ba nit ki bu ñëwee aajo xam nga.